محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله الذي أمات وهو حي كندنا قد مات دار الحمد لله الذي أمات وهو حي كندنا قد مات ثم صلاته على من فات كل الورى تولنا إن مات wa baxdu moosa dellu sant yalla julli ci mustafa muhammadil mbole murid yi ma ngi len di martial sant yangub murid yi sayyidul rijal sayxu suyuhi sayyidul muxtaari mo don kuntu yi ma don muxtaari halam la woon alxaaji anta moy jant kenn du ko naa mananta Seribu la woon bàjjo ba modi marifa motax moo tax mu atom woon ca xaama sarafa taarix ba moy atam junneeg ñaar téeméer yu tek juróom ñett fuk ak juróom yu leer bis bam gané adina réewam salum fa poroxaan tay nopp nee len malum nañ cheikh ban ba la fanan di fagu ay ngeeram di bind ak ñaan kérok la sum di mam mar anta jébbal sëriñ touba mbiram seexanta kérok la lèr ga dal di mel ni jant fenke ca mam mor anta ak mam anta ñu dal di tudde sayyidul mukhtari turam wasi wasi ba dem gannaari ca mom at la turando wafatu ñu roof ko ci ruba liyey ayatu cheikh samba tukulor bindal ko téré moog baayam ak Seex Bàmba bi kabiire noon na ma see fu ma takkal ab téere lu ñetti téere ñii ba may kabiiri keroog la maam anta miraas néegam ba famal ko lépp dem sarax baayam ba ni ko na gudd fan ni sun mamma aram te ni seex siidi ya moo di yaaram bisub keroog la yàlla def xar baax ya ci siidi anta mooy boroom xinaaya déglul ma wax la tey fa maam Seex Anta jaaroon ca dunduk sunu maam Mor Anta doora dawal Ahmadu Bamba maam daam fii zahirin ngir maa laaj sëriñ daam yetti atam la bàyyi ba génn saalum ñibbi këram Mbàkke pataar tey kajoor ña jiital ko mu lak jooru mu def ko xaadeem wax walaaye jooru ñu teg ca yetti at mu ko ab sëriñ foore ju rëy la won ju ma sëriñ ab siññi siññi la bu xam xuraanu te bare xam-xam moo rawan soo daanu mu boole ak maam ceerno ibra li li bil qur'aani sil aayaati sëriñ ba ànd ak ñoom baag bar ñi mu xëy ni leen tey jii ma dem samfer ñi fekkoon na baayam yónni wan seex bamba mu jëli leen fóore ja bañ ngir yen ba Badam xeye mu xey ni mes ñuy bamb maam ceerno gis ko ni ko toppil bamba keroog la xey di daw ba jàll pomba ngir na mu baayam ak magam seex bamba musien seen ña koy dab njool ma nuur ca ndox ma ca xunti pomba ni melas ca ñax ma mbooloo ma naa ndax dafa suux ca dex ga am dafa naaw am dafa dellu kër ga mu ni melas ni sayidul muxtaaru keroog bisub xuntima noon ya gaaru keroog la seex tàmbali feeñal xar baax murit yi xam ngeen ni sëriñ ba moo baax te boo juróom benn ak ak juróom yaar laamagum seex anta moo doy waar naar yaa ko jàppe foofa teggi wa ndam jëme ko gànnaar di ko jaayi nib jaam ba mak demee makk ak biraama xaali góor gaa ko nangu yët ko baayam xaali keroog la baayam giñ ni si bir muxtaar insha rabbi dana doon muxtaar ca at lañ fa yabal sëriñ ndaam ak jaay ab du biis ni maam daam baayam ba jébbal ko keroog sëriñ ndaam ni ko nawattu alxuraan ci daaraam mu yor ko jàngal ko fa néegi cëkkeen foofee la njàmbale bataar ba réer leen Cheikh Abdourahman daldi dem ba cumbu leen ànd ak borom gaawaan murit yi yëngu leen falatare la dale kaw ba suhara billaahi maa amee li waaw suhara Cheikh Abdourahman daal di del si Mbàkke si Bamba ngir ga barke falatare la dale kaw ba fatxi ba ca laxad radiya waxta subhi keroog la Cheikh Anta janoog sëriñ ndaam ni ko demal ma dem ca saam ak mooy daam keroog la xëy ni mott fekki Bamba xam ni sëriñ ndaam attanul yanam baa seex bamba jox ko saana jaay moor sekk moo ko defum kaang loolu bul ko sikk ku weddi lii nga dem ko laaj sëriñ ndaam moo ma ko wax ma way ko man mi way daam ca at la moom marantaa baayam ba faatu leer ga raw nab jantaa xaama sachin la won mujug xarnoom ba la wuy ji yàlla bamba yor xarnoom ba ca bopp nu ba di xaama asasi la bamba ñew mbàkke bawal ngir ñibbisi lola di wéré atam mom bamba seexantaam fuk ak juróom laasan ba ngir bamba ñew na fi ci xaama sharaha lëkkum sunuy nopp saraana sharaha taarix ba moy atam ju neeg ñaar téeméer yu teg juróom ñaar fukk lola mo leer fukki at ak ya lañ magante fukki at ak juróom yi lañ rawante at ya juróom ñaar fukk ak juróom la loolu sëriñ Mbàkke bu sooni xii seen mbir niroo na seeni at yamoona mét kanu seeg masin ba mool ba joow na bii xarnu mooy xarnu ba yàlla daa wax aji texee koy fekke loolu moo sax tuubaali man balaxa mooy addis ja moom la sëriñ tuubaa wayan di ja min asasin li masasin taqabbala wa bi siraatihi kafaani subula ca mooma at la ban ba sanc mbàkke woote fa tarbiya saxal fa barke ca mooma at la ban ba jëkk a ca googa kër la tàmbulee am rammu ca mooma at la ban ba jëkk tagge njool makka jay sasin mu far ca laggi ca mooma at la seex ma samba caat ma juddoo pataar bamba ko tuddi laaj ma ka kajoor la gonte mook sëriñ ndaam ne na keroog la mujjatiim ba dem saam moosaaka yaa ngi bëgg a ci bamba dëppal way seex anta fab na yan ba ca mooma at la bamba fab seex anta jébbal ma gam sëriñ ma mar muy sant mar jaara baayub taala jàngal ko laxlariyu ak risaala ca moom ab lataar ba sóor yaram wa xeesaay ba ànd ak leer ga ak banam wa waa mbàkke naa ko laxasal te salli te génn mbàkke lu ko mooy nga ca moom ab la dal nos ruuxam nga jébal sëriñ tuuba mu yor leeram nga moo jëkka fab mbiram ci seenu askan jébbal sëriñ tuuba ni róowul ak kenn mas naa dikkal sëriñ bi naa ko nos maa banal bakal bi may sa mbaarik saf ma masna dikel dikkal bi na ko nos ma banal bakal bi may sa mbaarik saf ma ñu xamne may sagan bi ya di yaaram yaaram du gam-gam le sagan ba xaadam masna dikel dikkal bi na ko ñaas ma ma def sa bambara nga saf ma ñu xamne yaay lawbe bi ma di mbam ma doo sama doomi baay wa balla maama mas naa dikkal sëriñ bi ko jaay ma ni ñuy jaam yaay boroom mi daay ma ñu xam ni yaa di gor jaam ba yoroo pël malal du moo jaam ba mas naa siyaara sol mbubum hariira ma ngay niroog shamsan wa zamhariira keroog la ban ba dal di futti mbubb taal ko muy tàkk mu sol ko ma seex ni ko sant naa la mbakke baal ma alhamdulillahi lu tee nga taal ma sariif mu laay nasara jaa yon mbub ma seexanta jënde ko jëbéer dëggal ma keroog la fab men ma may ko mbaaxaan mu di ko sol keroog la tàggoog caaxaan keroog la bamba féetewoo baatin ba mu féetewoo zahir sa fab na yan ba mas naa yoral seex bamba bis ak satalaam ñuy dem ci waxtu suba lay ba di ko faam keroog ba bamba yi bëgg a xuus ca lay ba daf ni lañ fa kanamam ak taar ba far di xalan kuy wéy ba génn ñax ma bamba topp ca te naa ko neew ma keroog la mat la yaag lalam ya ak coogo yaag tapi yaag pàkkam ya ku weddi lii nga laaj ko say xumbàkke mooy denc doom ja tudd soxna mbacke mo subaar xisaam ba bis bam de ca kaw lalub xayam ba budul ko nag rango yawan cesa ca wam sasi konte nu ci ci yow atam sa ya si yaa ya don wam sasi yengal nga rewuma cheikh anta dem na yóbbu say xaafiya ken amatul salamatan wa hafiya Cheikh jaayi sa dem gi am na firnde yaa neex taarixal nde yaa di gaynde Cheikh jaayi sa dem gi am na firnde yaa neex taarixal nde yaa di gaynde koloni yépp yëngu nañ ngir iti labraar yi dem nañ yile at du ati leer sanoon ya réccu nañ mbirum belees ma bitir ja fay na mbaal ja mbàkke buus ma radda makaayidal xidaa ilal xidaal moom la sëriñ tuubaa waxoon li man hadaa yandamu fi daarayni man haadaani bi hadali baaqin fadluhu hadaani ظلم نفسه الذي هداني لأنه بارس من هداني براز من بارسني براز من يبارز المنتقم البارس من سيخدمنا يبالي مرسندي اسمه bitig yi tëj nañ ndey ma raw na pees ma seex dem na yóbbu na kafe ki suukar ak warga ab ceeb amatul fa saakër seex dem na yóbbu na dara daraay perkaal kenn dootu sol neef meet di cooke say gaal seex dem na yóbbu na dara daraay perkaal kenn dootu sol neef meet di cooke say gaal ku daa baraa yow di reer taalaale day ndapp ndiiruy sol sa gargaalaali seex dem na yóbbu na cere yi maraakiis ak dali dooroog dali waa maraakiis ku daa maraakiisoo ka xëy di ceebu ma paraasu tey da xaarum ceebu ku daa maraakiisoo ka xëy di ceebu ma paraasu tey di xaarum ceebu seex dem na yóbbu na wataak isaasam tey noo ngi waaxu waaju xëy yor paasam ku daa dawal wataaka daa witeesu ma ngay tu mbam dox di geesoor jigéen ña tegele tegale ndo bino, tay ji ña ngay mbarañu dootuñ fuddanu tubaab ya wàññi nañu seen payoor ya ña daa fayoo ngi bay ta jor ya meetar fukk ak nangam ma séefu ko jaay kilo fukk ak nangam ma séefu ko jaay sirru bana talan ci rewi na ko no ngi yalwaan demam gi tax na ba nawet bi gàntu gerte yi yàqu na dugub yi lontu yàlla nu seex bamba yërëm te may nu nawet bu barkeel lu nu bay mu doy nu déglul ma wax la siidiyal muxtaaru kër yam amoon ci réew mi def koy dëru mbàkke kajoor la jëkk a sañceeg dëru yàggul fa xaama ba sachin dem dëru seex bamba sañci mbàkke xaama asashi ñu te ca yetteat murit yay laslasi mu sañ ci fa wetam daru salam ngir bañ lu xeetoo ki aram ak malam fuk ak juroom ñett ci weeru safari ci dafa sin bisub tala tala gori keroog ba sañ ci la ibrahim taal nos ruuga jox seexante sayyidul rijal mo jëkk a ci sidi am amta ñoo bokk wuy ji yàlla am nag wallahi bo mané su ko xol ak bët fuk ak juróom yat lam ci ay at lembe sa gaak leram gaak lelam ja xesay baak taram baak reham ja tasawufum jaak waare wa ak adiis ja xoram gaak sempale gaak xayteem ja cheikh bamba am fa yaare ak wey tuubaa sanci fa xaama wasa sin ndaw koobaa keroog la may daru salam jolanta mu sax fa fukki at ñoñam di sant nit ak juróom yett laam ci at arafe tuubaa la ma ne su at la seex yilif minal muridiin tisxan wa tisxiina mu téeméeral leen ca at la ko bu naa ma sàll ak ibra fatim saar di ñaani sàll mu bañ naa ko lee nga tàggoog mbooloo mbaate nga génn réew mi tey jëmbeelu Kerok da leen ni kama seexal falu leen dag ya ni dis mu murit yi fayu leen keroog kajooratee badar ja dekki ndekon ba tey ab cedd dootul tekki ca momat la san ci mbake beeri dajale fay ci xaari wal kibaari ñu di ko yem mu daldi san ci ca sa sin ñuy sakami amna atam fa càqami dem sañ ci gaawaan def ko daaru niami ci xaama ak sësin la sañ gaawaan am na fa fan weer ak juróom di baawaan la sii anta def caalu gaawaan maneesu koo lim duusi géej day baawaan boobaay ñeneen fukki atam ci dunyaa leeram ya jolli na ba wër lëndëm yaa ca mooma at la sañ kër fa ñaaxeen tabax fa kër jëndati kër fa ñanxeen ca moom at la tan ci kër fa ñaaxeen tabax fa kër jëndati kër fa njangxeen boole na kër gaag le saw seexam ba jox mustafal ba kii may taawam ba ca moom at la tan ci kër fa njurbel tabax fa xombal naar ya duñ ko jërfal ñu naa ko déet mu jënd kër tuubaatul sanc fa sanjara di sam marmaftul ñu naa bayit mu dal di sanc ndéem saar Syekh Alfa Ibrahim Maja Sulam War yooya Ayapan la jënd kër ci waawan dem bir ki laan ngir mag ñëwan ca baawan bam delu la jënd kër fata bi lëg moo raw sëriñ sawan dadaa dawee ni lëg jëndoon na kër fandar ca xaama bak sa si jëndoon na kër ndakaaru al sa si amoon na kër baambay amoon na baabulo aman juróomi at segoo ki baafulo amoon na kër baambey amoon na baabulo am na juróomi at segoo ki baafulo ñibbisi am juróomi at daaru salaam wuy ji boroomam dem këram daaru dem na ba makkata ba dem madiina siyaar xawirul xalqi saana diina dem na ba makkata ba dem madiina siyaara xayrul xalqi saana diina sol ko fi suuf du tax ndamam ya suulu جفل نسيخ بامبا جفل رسول دنيا سرون كروك رجال الله لكان فيها خير خلق الله أين خديم المصطفى لله هو وسيلتي إلى الإله أين صحابة رسول الله والعالي والصحاب يا الله وأين عبد القادر الجيلاني أين الولي أحمد التجاني wa sayidul xadan farul kuntiyu arjih bisul muqaddamul waliyu wa sayidi muhammadul yadaali wa saahibul awtaadi wal abdaali wa radiyallahu anil jamiihi baada salaati ala shafiihi ñii ñépp wuy nañu ñang fa nan jéema wuy fekki mbàkke balla ma dellu jooyaat ñaaru doomu antaal adina yang ngi may saamandaay ab gemta kuy deeti mel ni ñaari doomi amta kale di weer kële di maanaam jant te mau su amatul ab jant te amatul weer ndaw lëndëm guy fant daaru salaam gu amatul seex anta lu ma maamuun farlu farlu gontu juróomi waxtu yaa ngi jooy fa njurul bel lu mbàcce farlu farlu nërmal këlee di jant ba demoon ba Makka këlee di weer te ilimaane jàkk këlee yoroon daaru ak gaawaan këlee yoroon jurbel ñu fal ko ilimaan kee naka jóg sóobu ci yoonu xar baax kee naka jóg sóobu ci yoonu ak baax këlee yoroon sant yoŋob murit yi këlee yoroon sarixatu fariid yi këlee tabe ga mel ni biyaaram këlee topp ga mel ni Kale demon gabon bi andak mol ya kale durus kamil ya tay yir mol ya kale la non ya yóbbu woon interdit top to waxtu ya musla tarde kale yaram tubab ya melni banke kale yaram juma ja muslimanki kale yaram wata ya andak tax ya kale yaram da duga bax ya kale yaram batin bu andak zahir kale yaram yoroon so su titer këleenu daa dimbali may nuy koppar këleenu daa jiite jumaa nuy kabbar këlee yoran liimaan ja gëm yonen baal këlee yoran lislaam ja dëkk ak bambaal këlee yoran tërbiya ga am am ba këlee yoran tariba ak xam-xam ba këlee yoran saadata daarayni kee yor salaamatan min alxaarayni këlee yoran xeesaay ba mel ni naar baal këlee yoral lay ba and ak saar ba ta njaay wacc na am nabi yaram am ilimaan galiwulan ci maram ma wax la xar baaxi serigne yo xamni ni ci ñuñ soodaani cheikh bamba matna naa amu gan fa mbacke soxla ndawal te booba rew mi bank mu dem fa kër maam anta laaj fa gànjar boolak fital guñ xoobe ci xanjar Andak ak sëriñ ka ñu dem ka yeelaa jaay ko fa jën ndaw nak jogal ma yeelaa ñoo ko fa jiitale keroog ba mbakke keroog la leen seex bamba fàggul barke ker bañ reyee nag wala bamba wo seex mu toog ca kaw der ba mu naa ko yaa seex ñu dégg muy jàng di ñaan di jublu xebla gu nekk ñépp toog di digloo keroog la bamba naa ci barke jiili na sayxu anta fawxa kullu jiili seex bamba bindoon na keroog ab leetar lankar ju xonq la tofal ko tiitar am na lu seex doon sàkku bis fa njaareem nettali leetar ba sëriñ ba muy bagan ña delloo la ko naari di jindi jamam mu boole ahmadul Muhtar baik. seex ma ayib njaay saadixiina yaawey bañ dellu la bamba faj seen aajo xisa ba doy na lee murit yi xaaju ma del wax leen fi yeneeni xar baax ngeen xam ni Siidi Anta Mbàkke moo baax keroog ba seex bamba demee maa yomba ca xaama jey sin atum génneem ba moo di atam junne ki ñetti téeméer ak fukki at ak yatt lim bilee loola la sii di antalim cib xaalis def ko sarax ca mooma ab lii laa gis junni la fab ci ngurdu jox ay jaam penku lañ jaar junni la fab ci ngurdu jox juróom ñaar ñuy jëndi ay jaam penku fuuta jaar ahmadu njaay jóob ak amar biraan saar sëriñ ma xujja jang li lee doy waar sidi ba sidi jobu abdullahi fay ak ibra jang seexanta daana leen fay ngir ko ko jëndaloon lu mat juróom ñaar may na la ñaaru jaam kilee di muxtaar jabeer bu man ilayka yaa rabbal wara mu bala yow nga dem sol say dara jabeer bu man ilayka yaa rabbal wara mu bala yow nga dem sol say dara ca moomaat la woolu wëkk néeg ya ne leen na ngeen wër mbàkke topp néeg ya foob ñetti téeméer boole koog jibéer ya séddale waa ñu mel ni buur ya ahmadu soxna jóob la jox téeméer ya moog seex ak seex sa ñooy seereem ya ba ñu demee mbàkke ñu wër ko bam daj gone dërëm mag ñaar alal lii lay faj lam jox magam sëriñ mamar borom saam mané suko ko lim mat na ngallo ci jam jox na ko xandi diw yu and ak yoran tofal ca fan wèr jox na ko ay gëléem yu and ak fasinar ngir day sëriñ di bay di mag mako xibaar daaru tv cheikh ibrandou ndumbe yatti fas ak ab jaam cheikh ibrangoy yari yaari ak cheikh ibra absa am gëléem ak ab moor soxna sekk am na téeméer ak mbaam jox na sëriñ sayxul mbusoo bi ab jaam jox na ko aw fas ak gëléem walaay naam jox na sëriñ mbàkkeel mbusoo bi ab